ñun waa boulevard Ndoyeen ñooy woote ndimbal ci préfet wu Mbacké ci maire wu Mbacké ci autorité Mbacké yëpp nag bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen nag ak ndaw ñun waa Ndoyeen dañoo sonn boulevard bi ñun waa boulevard bi dañoo jaaxle ndax jaaxle gi mooy lan amuñu ndox guddi amuñu ndox bëccëg màggalu daaw ba màggalu ren safar gi nii ndox mu ñu fi liggéeyee dañ koo wuti dañ koo jënd booba mën na nga ne amuñu ndox bu ñu toogee ba deux heures du matin trois heures ci robinet yi du ñu am ndox trois heures trente ñu commencé di am six heures mooy mu coupé ndox ma jeexaat dootuñu am dara ñii danañ am ñii duñu am ñun nag ñi ngi ñaan ndimbal suñuy bokk ñi ngi ñaan ndimbal préfet ñi ngi ñaan ndimbal mairie bi ñi ngi ñaan ndimbal ñëpp monsieur le maire na nga xool li te dégluñu te dimbaliñu xam ne waa boulevard Ndoye ñun amuñu ndox jaaxle nañ root nañ ba sonn sanguwuñu footuñu raxasuñu ñun ñëpp a sonn sareeti ndox mi ci sareeti ndox mi la ñu dëkk ngay jënd ndox mu neex barigo bi deux mille franc tey nga gis ko suba doo ko gis ndax borom ndox mu ci nekk client am lay jaay te ñëpp seen doole matewul bés bu nekk barigo ndox am na ci kër yoo xam ne ñetti barigo ndox jagalu leen par jour ñuy ñaan dimbal nañ ñu dimbali ci ndox mi sonn nañu jaaxle nañu yuuxuñu nag def leen waxuñu lu ñaaw defuñu lu ñaaw ndox daal la ñuy ñaan ku ñu dimbali ñu jël. nañ ñu dimbali ci ndox mi ba léegi am na ci kër yu fay facture am na ñu fayul mais du ñëpp a toog fayuñu waaye du ñëpp a ngi fay tam waaye ñàkk ndox gi moo jaaxal doomu aadama yi ba ñëpp mënuñoo bokk di fay te kon bii rek la gox bii rek la ñun Ndoyeen boulevard bii ñun ñoo nelawul guddi nelawuñu bëccëg ginaawaay am na ndox gaawaan am na ndox kuude am na ndox jàmm gën am na ndox ñun boulevard Ndoyeen rek ñu amul ndox. ñoo ngi ñaan daal nañ ñu dimbale indi ñu ndox mi ndox rek ñu bëgg loolu rek la ñaan jërëjëf jëf dañoo sonn dañoo tay dañoo damm ñun góori boulevard Ndoyeen tey ñoo mobilisé wu sunu ay soxna derrière sunu ay jigéen derrière sunu ay yaay ndax yërëm leen ndax li ñuy daj ci wut ndox dañoo roota roota root ba bëgg a dee fanaanuñu nelawuñu ngir am ndox ñun dañoo sonn dañoo taay dañoo damm kon bi bokk na ci kon bi nga xam ne moo gën a respecter les institutions respecter les règlements musuñu ñu dégg ci dara musuñu ñu ci benn ayib mais tey ñun ñoo taxaw di wax ak autorité yu waa Mbacké dañoo xamul lan mooy la raison pour laquelle ñun mënuñu am ndox bu ñu am ndox guddi du ñu am ndox bëccëg te bu ñu laajtee du ñu ñu wax dara lu leer li ñu ñuy wax mooy ne tuyau bi dafa sew mais teebu du bu sewee ñun lu ci suñu yoon kan moo fa samp teebi lan moo tax ñun ñuy fay suñu ay impôt lan moo tax ñun ñu respecté ay règlement te duñu jox ndox loolu nag mooy li xam ne moom moo ñu yëkkati tey ngir ñu wax ak autorité waa Mbacké bii nag lancement bi la lii mooy préavis bi maanaam fii ak deux jours bu ñu amul ndox guddi amuñu ndox bëccëg dinañ passer à la vitesse supérieure kon nii kon nii mooy sew kon bi nga xam ne malgré manque ndox mi malgré canicule bi ñun gis ngeen ñu ñu ngi nekk di set setal suñu koñ ñu ngi nekk di def hygiène ñu ngi nekk di def propreté publique te xaaruñu ci ta te xaaruñu ci Mademba donc li ñu bëgg mooy lan ñu jox ñu du respect jox ñu suñu gëdd laaju ñu dara li ñu laaj mooy le liquide précieux bi nga xam ne suñu borom moom moo ko wàcce ci kaw suuf depuis cinq ans mënuñu am ndox guddi mënuñu am ndox bëccëg l'eau ne coule pas des robinets l'eau ne fii ci boulevard Mbacké Mbacké bu Ndoyeen loolu nag la ñu mënul comprendre ñuy daw ñu lancer un appel à toutes les autorités de Mbacké ñu wax ci bala passer à la vitesse supérieure ndox la ñu soxla ndox la ñu soxla fii ci Mbacké Ndoyeen te ñëpp a xam ne fii accès principal Mbacké la accès principal Touba la te ñun sommes des talibés on va rien faire bëgguñu def dara loo xam ne dafay nuyu dafay nuroo ak li xam ne boo du wootee sëriñ bi wala muy ndoog loo xam ne sabotage la mais liñ bëgg moo ñu jox ñun ndox wala ñu barrer la route muy boulevard Ndoyeen fii ak màggal daaye deux jours lañ ne autorité yi fii bu ñu amul ndox on va passer à la vitesse supérieure lii nag moo daa leer ci bopp autorité